waaw li ñu bëggoon a leeral tuuti rek ci lenn ci li nga xam ne moom la mbokk yi bëgg a xam muy fi nga xam ne fi la daara ji sosoo dëgg la duñ mën a xam lépp sax waaye du ñàkk am lenn loo xam ne danañ ko ci xam ndax lu néew néew néew am nañ fi ay at xam naa ne donte mënuñoo xam lépp it am na loo xam ne mënees na ko cee xam maax daal ci ci ci ci misaal ak ci gàttal ak ci tënk daar ji sunu maam Serigne moom moo ko yoroon. te am na ci ay dëkk yoo xam ne ci la jot a jaar ba agsi fii ba wax nañ ne sax bi mu demee bay bëgg agsi bay toll ci jamonoy agsi fii ci ci dëkk bu sell bi Touba wasila moo suñu Mbàkke soxla moo ko ci joxoon ndigal waaye ba sama borom dogalee nga dem ba ndigal la jàppandiku jamonoy 52 53. ci tënk rek xam naa lépp duñ ko mën leeral waaye des koy tënk rek bi muy laata yor daara ji yaakaar naa ne Baye Serigne doxal na ko tuuba loo xam ne si lu diiree diire la. biñ demee ba nga xam ne si ci la suñu borom dogal ay ci ci liñ jàpp rek ci suñu xalaat bu gàtt 2004 ba 2005 wala 2006 ci la ko maanaam suñu borom maanaam mu xaw mu xaw a doole lool ci ci ci daara ji moom boobee xam naa ne ci ci coobare suñu borom rek ak kuutaat googu suñ suñ mbàkk war a wuutu xam naa moo tax jamono jooju suñu borom toftal ko ci loolee ba boobu ba léegi suñu mbàkk mi ngi yor daara ji ba mu ko yoree léegi nag suñ borom dogal na ne dara dara dara dara tilimu ci dara dara dara ñaaw ci waaye dara it amu ci jafe-jafe boobu ba léegi nag sëñ Mbàkke mi ngi yor daara ji bu fekkee mbooloo mi ak cant gi comme ni ko mbokk yi laajee nga xam ne ban bis la yan jamono lañ ko tàmbali yaakaar naa ne ñu ko tàmbali deux mille mën na ne sax mën nañu wax sax deux mille trois ne daayira moom boobu ci ndigalam la la la ci lañ ko tàmbalee waaye biñ koy tàmbali ba di ko bëgg a génne it moom moo joxe ndigal ndax ab dong moom ku ne xam na ne lam daan xam. mooy dem di football yi wala ngay ngay ngay ngay wàcc àllarba di am liberté waaye gars yi mag yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo nekkoon ci daar ji ku mel ni jóoriñ yi mag yi ngeen ne ñoom ngay gis ci ci ci ci ci ci ci gi ku mel ni sëñ Pablo sëñ Cheikh Bambali sëñ Ahmed Dieng Cheikh Abdourahmane Fall ak ña ca des ñëpp bisim soo sàll ñoom ñooñu toog ba yàgg ñu xalaat ne ab daayira kat war na fee mën a am biñ xalaatee lool wax ko wax ko jëwriñ ji jëwriñ ji daal di koy rafetlu lool daal ñu ci jox ndigal daal ne lu mu mën a doon nag ni ngeen ci wane yar ak teggin boobee ba léegi saa borom dogal na ne daara ji mi ngi dox mi ngi dox bu baax wax dëgg yàlla mi ngi jëm ca kanam bu baax a baax a baax te dañu yan saa borom mu gën a yokk jëm ci kanam bu baax ba demee ba saa borom dogal maanaam ñu koo génn moo ci joxe ndigal daan ngeen mën a dem di ngeen fa wane ab yarakub teggin te yaakaar ba tey jii moo waral maanaam ñu ñu nekk ci ba heure bi moo waral waxtu wi fekk ñu ci ba heure bi léegi bi borom dogalee loolu am bi yàlla saa borom dogalee loolu am it nga xam ne daayira boobu ba tey ñu ngi koy doxal bi nga xam ne maanaam ñi nga xam ne ñooy ñoo war ñoom ñooy tar ci at mi nii bañ ko tàmbaleeg léegi it yaakaar naa ne deux mille deux ba léegi ñu ngi koy tàmbali ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooy génn ci at ci li nga xam ne ci ndax xam nga moom nit ki moom nit a aadama mutut wax ji moom lu ci jublu nekk dañuy xam ne coobare suñu borom la lu ci dëng it xam ne sama jëmm ji moom matadi ak lott ci wax ko ndax it lott naa ci lool wax dëgg yàlla lott naa ci lool waaye boobu ba léegi maanaam sama borom mi ngi mi ngi sutural ba at mu jot rek saa bu dikkee dana am loo xam ne danañ ko génne ci ñi nga xam ne si ñoo ñoo war a mokkal xam ne si ñoo war a mokkal yaakaar naa at mañ ko njëkk a defee génne nañ ñaar nit at ma ca topp génn nañ juróom-ñett nit at ma ca toppaat génne nañ fukki nit ba daaw yaakaar naa ne su fekkee ne ah, am na juumte rek man mii maa man mii maa juum ba daaw yaakaar naa génne nañ fukki nit ak benn ren jii ñu génne fukki ak juróom benn kon ñu ngi ñaan suñu borom doole ñu ci sutural bu baax a baax baax yaakaar naa loolu lépp maa mi ngi am ci daar ji bu dee comme li ngeen laaj maanaam ci wàllu maanaam xale yi nga xam ne ñoo fi jàng ay ñaataat la ñuy am maanaam loolu moom wax dëgg yàlla suñu bàkk suñu borom na ko toofeex yoo xam ne maanaam xale bi maanaam donte daa fer sax ndeyam indi ko fi te bëgg mu jàng te mu te mu yitteel ko bu boobaa dana ci doxee na mu war a doxee bu mat sëkk waaw loolee moom suñu borom toofeexal na ko ci bu baax a baax a baax kon nag yaakaar naa loolu lañ amoon ci lu ñuy wax waaw daara ji moom wax dëgg yàlla day jàngal góor di jàngal jigéen waaw di jàngal mag di jàngal ndaw am na ci am na ci soxna yoo xam ne sax biñu demee ba dugg seen seen seen biir kër di di di di sëy ci gàttal maa ngi jégalu ci kaddu gi buñ bëggee buñ bëggee maam dabluwaat li nga xam ne moo leen weesoon buñ dikkee waxtaan ceeg ñoom suñ borom day ma suñ mbàkke da ci ànd ak ñoom am na am na waaw ci gàttal daal ñu ngi fiy jàng xam-xam di fi wan a yor di fi def lépp daal wax dëgg yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi jégalu baax a baax a baax tawfiix asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, mbokk yi ñu seeraan ñu ngi leen di siyaar yéen ñëpp yéen siyaare bu baax a baax di am am message bu ñu bëggoon a jàllale ñu teew fii ci daara ji nga xam si mooy daara yi jamaatu xidma lil quraan wal muslimin mooy daara yi sëñ Mbàkke Lo nekk fii ci Touba Daaru Nahim am ay liggéey yi ñu def yoo xam ne sii dañ ko fay jotoon a commencé liggéey bi nag ñu ko fiy def mooy ñi xam ne sii dañoo jaaroon ci daara ji ba pare euh, jóge fi ñëwaat di bàyyiwaat xel liggéey bi di delloo njukkal Euh, daara ji bu baax a baax ñooñ nag liñ jublu ci lii mooy ne bëgguñu rek jóge fi rek bàyyi daara ji noonu ndaxte gëm nañ ne suñu jógee fi bàyyi daara ji noonu rek daara ji mën na dem ba nax saay te loolu kon su boobaa seen fot lay doon moo taxoon ñu amoon yéene ñoom fexe ba liggéey bi ñu jëm ko fexe ba di ko bàyyi xel di ko saytu saytu gi nag mooy fi ñu ci commencé mooy dañoo fexe ba fi nga xam ne si moom lay dongo yi di jàngee ñi defoon fi am mbaar mbaar moo xam ne dañ koo defoon mbaarum seng ñu dem ba ci yàgg ñu xam ne ne kat euh, seng bi euh, war nañoo xoolaat yeneen luñ ko jéem a remplacer ñu demoon ba def fi mbaar moo xam ne si commencé woon nañ ko fi ne ba def ko ba kuule ko bi jamono biñ ko kuulee nag ba pare ñu amoon ay euh, liñ ciy def yu bëree bëri yoo xam ne ci wàllum xaalis boo xam ne si ñi fi jaaroon rek ñoo ko doon def seen i biir ak léeg-léeg yenn ci nit ñoo xam ne si tey lu baax dee na ñor léeg-léeg ñu jël seen xaalis di ci participer léegi nag. ñi demoon ba am yeneen sant yoo xam si ne dañ ko cee bëgg a dolliwaat sant bi mooy dafa am mbaar moo xam ne si dañoo dafa nekkaat ci biir dañoo bëgg nag boole lépp muy nekk benn mbaar loolu nag nekk loo xam ne si ab somme la boo xam ne si ab bo xaalis bu bari lay laaj léegi nag ci biir loolu ñu bëgg a képp koo xam ne si parce que dañuy laa benn appel boo xam ne si képp koo xam ne sii rek euh, Alxuraan ñor na la aussi tamit liggéeyal suñ borom ci Alxuraan ñor na la dañ la ciy woo. woo gi nag mënut a passé mooy ñu xamal na la ne mbir mi nii la demee ak fii lañ ci toll wan la tamit dëgg-dëgg mbir mi su ko defee képp koo xam ne si mën nga cee jàpp ak noo ci mën a jàppee moo xam da nga ciy jàpp ci sa wàllum doole wala da gis koo xam si leer nañ ñi tamit soo jógee wax ko ko moom dina ci mën a jàpp yëpp soxla nañ ko ndaxte liggéey bi nekk na liggéey boo xam ne si du liggéey bu yomb ndaxte ay millions koy def moo tax ñu soxla woon képp koo xam si mën nga cee participer ak ñun noo ci mën a participer ak lu mu ci mën a doon rek ñu xeebuñu ko ndaxte euh, am am na mbaar mi may taxaw nii am na néeg bi ñu fi commencé def boo xam si néeg bi li tax ñu def ko fi mooy euh, ki nga xam si moo yor daar ji moom lañ ko fi defaral te néeg bi bëgguñu mu yem ci benn néeg bi ndaxte suñ paree ci mbaar mi. ba ñaari mbaar yëpp takkaloo dañoo bëgg a tegaat ay néeg ci kaw yoo xam si donga yi fi la ñuy fanaan suñ jàngee ci suuf di jàngee ci suuf di fanaan ci kaw am loolu lañ bëgg yéen jooju nag dañ koo bëgg gun nii waaye xaalis bi nga xam ne si moo koy def amagu fi léegi nag liñ ci yaakaar mooy dañoo gëm ne ne mbirum suñ borom moo ñu tax di def te képp koo xam ne si suñ borom moo la tax di def suñ borom mën na la jàppale ci soo ci amee positif ak dogu bi léegi nag suñ borom amul tamit lenn lu muy def loo xam ne si day jekk-jekk di wàcc di la ko defal déedéet yow yaa am positif bi jëm cee waxtaan ak doomu aadama yi. ñi nga xam si ñoom nga ko seqal wala wala jàpp nga ne ci ñoo xam ne si tey soo leen ko waxee wala soo jàllalee message bi am ñoom seen mën laa bañ a xam waaye dinañ pare pour dugg ci seen euh, xaalis ñooñ nag la ñuy waxtaanal bëgg képp koo xam ne si pare nga pour jàpp ci wala am nga lenn loo xam si bëgg nga cee dugal jëmm ji di wax ak yéen ji xeebu ji moom muy mooy ki nga xam si moo moom lañ jël jiital ko ci liggéey bi moom nag képp koo xam ni si bëgg nga ay contagam moo xam nga soxla ko wala yi mel noonu wala nga bëgg am dëgg-dëgg mbir mi mu gën la leeral dëgg-dëgg yan mooy dëgg-dëgg njëriñu daar ji soo jëlee ay contact woo ko ci li ma ne 77 781 75 75 77 781 75 75 wala nga jël tigoom 76 461 15 88 dina la gën a leeral dëgg-dëgg mbir mi aussi tamit lépp yéene boo am pour def ko ci tamit dina la ko yeggaleel fi nga xam ne sii fi la jëm kon daal dëgg mbir mi loolu la mooy ne. am jubluwaay ci daara ji daara ji nga xam ne si ay gone yi toll ci trois cent trois cent personnes ñoo fi jàngee trois cent personnes kon loolu xam ngeen du lu ndaw te loo loo xam ne si da nga euh, ku mel ne ku mel ni dañ ko war a jàppale xam lu tax ñu war ko jàppale mooy ne dafa bokk ci ñuy participer ci réew mi. parce que mi ngi préparé ñoo xam ne su ëllëgee ñooy nekk ay imam ñooy nekk ay sëriñu daara ñooy nekk ay leneen leneen kon ku mel noonu kon war nañ ko xool nuñ ko jàppale ni ñu koy jàppalee du nenn du lenn mooy fexe ba di jéem a ci daara ji su ko defee moom xelam day dal parce que moom dafa wax lu am solo nee na képp ku koy jàppale ak loo ko mën a jàppalee def ko ci daara ji moom loolu rek la soxla daara ji rek la soxla kon ñu ngi loo ñu ngi bàyyiloo xel ñëpp koo xam si yaa ngi ñuy eh, dégg wala nga ñuy seetaan ñu lay ñaan rek lépp loo ci mën a def te yàlla rek tax ñu ngi lay ciy woo kon loolu rek moo waral waxtaan wi. kon dañuy yemale foofu kàddu yi su ko defee ñu wan leen image yi gën leen a leer dëgg ni mbir mi ngeen xam ne lii la nii la demee ak fii lañ ci toll kon wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf amat na solo lool kon soxna Fane ba ñoo ñëwaat ci beneen laaj day nuyu ak di ziar soxna Serigne Mbacke Dieng dañuy nuyu ak di ziar Serigne Mbacke loo xam naa fi nga nii sax mi ngi ñuy bàyyi xel yu seetaan ñoo ngi koy ñaanal fan gudd ak wér rafetlu liggéey bu rafet kon soxna faam dama bëggoon nga leer leen jigéen xàq ji ko ci jëkkëram bismillahi soxna si jërëjëf soxna Ndeye xàq yi nga xam ne moo war jigéen ci jëkkëram danaa ci leeral tuuti ndax yeneen suñu borom kër yi naan fexeel matale xàq jooju te bu ñuy tàmbali soxna Faama waxoon na jigéen bu ëllëgee des na ko laaj ñu doon sàmm ci biir këram muy néegu sëyam soxna soxna Faama dañu daal di ñëw suñu laaj bu mujj laata ñu ñu ñëw nag day sant soxna Naam Njaay ak soxna Ami Géey ñoom it ñoo féete fa daara Janaatul Xidma di fa liggéey liggéey bu rafet ñoo ngi di nuyu di leen kon soxna Faama dañu daal di ñëw laaj bu mujj soxna Faama mel na am na saako yoo xam ne moom soxna yi bi laaj nga ma lu am dafa am ay saako yu ñuy doxee fii ci daara ji max naa ci wàllu soxna yi dañuy soxla ci col gu jot ak fuñ man di nekk bokk na ci li ñuy tere yokk sa kawar ak soppi saw melokaan ak lépp loo xam ne lislaam bugg ko col gu jot gi rawatina buñ dee ci daara ji. foofu sax dañuy wax ne bépp mag buy jàngi nay soo roog bu jot tey wee waaye loolu gis nañ ne jafe-jafe bi ci waajur yi lay tàmbalee ndax duñ jàppale xale yi ci bëgg-bëgg daara ji ba na bépp waajur boo xam ne yaa ngi ñuy dégg nga gën ñoo jàppale ci yooyu ak lépp luy soxla ci xale bi ci lu baax ci biir daara ji nga def ci sa kemtulaayu kàttan jàppale xale bi jàppale borom daara ji ñaareel ba mooy seetlu ne xale yu jigéen ku ci jóge ci daal di am soppi ko dootul coccoor bu muuru te nañ ko na bañ la koy digal bañ la koy digal daara ji taxul woon digalu sunu borom moom lañ doon seedaliwaat ci yow ndax sunu borom dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudniina alayhinna min jalaabiibihinna ne ko waxal say soxna ak say doom ak jigéenu jullit ñi ñuy seenu yaram ba mu daj loolu nag moo cee tàggat ay ndawam yu jigéen bokk na ci li seetlu ci ñoom ba tey dañuy commencé yokku seen kawar commencé seenu yaram wal xiyaasu billah yàlla ci yàlla musal dem na sax ba am ñoo ne bis bi ñuy dañuy sol day jéggi day lool ba boo leen xoolee dangay daal di am lu la metti lool ndax melokaan wu ñu wane wuute naag bañ leen waral ca daara ja kon yéen ne yéen a bàyyi ko ci daara ji nga la waay xoolaat leen seen bopp. fas yéene waaye ndigal yi nga xam ne mooy seen njariñ àdduna ak àllaaxira kon soxna si lii laa doon laabire waajur yi ak sunu mbokk soxna yi bàyyi ko ci daara jërëjëf soxna Fama loolu leer na naa ñi kon mu mel ni daara jamaatul xidma loolu mooy aw definam ci wàllum soxna yi soxna Diop lan ngay wax ci soxna Fama loolu leeral jërëjëf soxna Ndeye Diop a àdduna ak àllaaxira kon bala ñoo ñëw suñu kàddu yi mujj nañu dem fële ca Daaru Kudoos fekk ko suñu ndaw mu defaloon ñu ñi nga xam ne dañoo bàyyi ko ci daara ba pare jàppoo ba dugg ñi nga xam ne moom la seeti woon tey ñu ngi bàyyi ko ci daara bu am solo kon nañu daal di teewlu sëriñ Mbacke Dieng ci micro seetaan mu mel ne soxna Fama leeral na lu am solo moom soxna Diop kon na leen dina takkuwaat te jëfe digal tere nga xam ne moo sën leen àdduna ak àllaaxira kon bala ñoo ñëw suñu kàddu yu mujj dañuy dem fële ca Daaru Xudóor fekk ko suñu ndaw sëñ Ndak Ndiaye bu defoon loolu benn gëstu ñi nga xam ne dañoo daara ba pare woo bëgg pour daara mu mel ne ñi xam ne moom la seetu woon tey ñu ngi bàyyi koo waaye di sunday bee comme ni nga ko waxee maa ngi fii ci Daaru Xudoos fekk fi kenn ci jaaroon ci daara jamaatul xidma bu sëriñ Mbàkke Lo moom nag ñi di ko wax sëriñ Gueye Dieng mu jiite mbooloo mi xam ne ñoo bàyyikoon ci daara ji kon dañ koy jox suñu micro daal Cheikh moom waxtaanu gàtt sëriñ bi maa ngi lay nuyu ange billahi mina seytaan rajim booy ne ange soha bi ko solitaha mina seytaan rajim rabbi ange bika min amasati sayatin wa ange bika rabbi an yahdurun bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa xadimihi wa sahbihi wa sallama tasliman uh, asalaamaaleykum wa rahmatullah kon ku baax ki fay naa la bismillah sëriñ Gueye gannaaw bañ la nuyoo dañuy daal si xëy waxtaanu gàtt ci liggéey bi nga xam ne koy def jamaatul xidma mu mel ne yow yaa ca bopp ba sëriñ mu mel ne daaw ren am na lu liggéey ci daara ji ñu bëggoon nga indi ñu ci ay leeral jërëjëf ku baax mu mel ne liggéey bi Euh, daaw ak ren liñ ci jot a liggéey nekk na loo xam ne si lu am solo la bala ñuy dugg ci dëgg-dëgg nag euh, daaw liñ ci liggéey ak ren bëggoon nañ am luñ leer dëgg-dëgg ci liggéey bi pour ñu bàyyi xel bu baax a baax ne liggéey bii ñuy def ci daara ji ñuy jàkkaarloog moom muy mbaar mii liggéey la boo xam ne si liggéey la bu am solo boo xam ne si mbooloo mi koy taxawu fi ne nii euh, néew nañ lool te jataay te te ñi jaaroon ci daara ji war koo taxaw ëpp nañ téeméeri nit cent personnes ëpp nañ ko te dafa mel ne information bi jàll na ci fu nekk ku nekk ci ñoom yëg nañ ko waaye pour ñu taxaw liggéey bi ban naa la wax ñu koy taxaw suñu matee fukki nit ak juróom dañ ko passé loolu nag war nañ cee taxaw seet seedaat dëgg-dëgg lan moo a lool ndaxte su fekkoon information bi moo jàll ñu ne waaw waaye information bi jàll na ci ku nekk kon ñi ngi soññuwaat bu baax a baax nit ñi nga xam si ñoo jaaral ci daara ji te bokk ci liggéey bii ñu dimbali ñu dimbali seen bopp jéem a di participer ci liggéey bi ndaxte dañ ne chaque mois 3000 la ñuy joxe 3000 francs loolu mooy 1700 francs la yaakaar naa ne lu yomb la te am na ci ñoo xam si ba ni may waxee yow joxewuñ ko kon euh, ci gàttal ñu wax ne liggéey bi euh, daaw ak liñ ci liggéeyaat mooy néeg bi ñuy seen ci kaw néeg bi suñu mbàkke loolu lañ ko liggéeyal mooy borom daara ji néeg bi rek fi ne nii. amee nañ ci bor 500000 boo xam ne si fayaguñ ko mu ngi suñu ndodd mii kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax kon daaw li ñu liggéey ci daara ji mi ngi toll ci wàllum néeg bii ngeen gis ci kaw ak tamit yenn finition yi ñu doon defaat ci mbaar mi kon foofu lañu lañ tollagoon bisimilah. jërëjëf sëñ lan ngay wax ñi xam ne jaaroon nañ ci daara ji te liggéey bi am lu leen ci war. waaw mooy li ma doon wax léegi rek mooy ku nekk ci ñun nga xam ne lii ñuy def. ku nekk ci ñun da ko war a def ndaxte euh, Baye Serigne Lo ba mu fi nekkee ñun ñu fi nekk di jàng alxuraanu karim amul kenn ku daal ku fi daan fay dara déedéet Baye Serigne dañu daan jàngal ba pare dawuñu ko jox dara tey nag mu def ci ñu loo xam ne si lu rëy la muy alxuraanu karim kon jon na sëkk ñu delloo ko njukkal ana nu ñu koy delloo njukkalam mooy fexe ba liggéeyam bii mu fi bàyyi suñ Mbacké Lo di ko continuer ñun ñu jaaroon ci daal ji ñu fexe ba chaque mois 3000 yooyu ñuy laaj ñuy laaj ñu koy joxe. te loolu lu yomb la te mën naa la wax ne fukki nit juróom yi koy taxaw ñooy def léeg-léeg ñu am réunion bureau fii ci euh, daara ji jékki-jékki daal di jaayante kii ne mën naa jaayante cinquante mille kii ne mën naa jaayante vingt cinq mille moo tax liggéey bi toll fii te liggéey bi yàlla dañuy def barke bu rëy rëy ndax lu tax mu def ci barke bu rëy rëy mooy mën naa la wax ba mu commencé ba léegi maçon bi koy liggéey da koo jaayante maanaam dene bu ko kenn fay dara lim bëgg mooy bàyyi fii loo xam ne si su ëllëgee dañ ko koy xoolee muy Baye Aliou Diagne mii Baye Aliou Diagne nag ñëpp xam ne moo jaayante liggéey bi kenn fayu ko ci dërëm ànd ceeg ñenn ci dongo yi ku mën ne sëñ Moustapha Sall mi nga xam ne dafay jaaroon kooku tamit bokk na si ñu koy jàppale ak ñeneen ak ñeneen kon daal ci gàttal yéen ñi nga xam ne si yéen a jaaroon ci daara ji ñu ngi leen soññuwaat bu baax a baax liggéey bi dañ ne chaque mois 3000 francs la ñu joxe loolu yaakaar naa ne jëfewul kon ngeen ngeen déggaat ko bu baax a baax te chaque mois pour ngeen joxe 3000 yi yomb na parce que fi ne fu waay mën a nekk mën na envoyé 3000 transfert yaa ngi fi kon lool ñu ngi leen ko soññiwaat bu baax a baax bisimilah. jërëjëf sëriñ bi lan ngay wax waajur dongay ci liggéeyu daara ji ak ñi xam ne def lu baax ñor na leen. waaw li ñu waxaat ci waajuru dongo yi man na ne réunion bi ñu fi mujjee def euh, ci wàllum waajuru euh, kii soxna yi maanaam suñu yaay yi. ñoom fi ne pare nañ pour bokk ci liggéey bi mooy ne dinañ fexe ñoom chaque mois am nañ jaayante ñoom di ko dajale pour di ko def ci liggéey bi kon mu mel ne waajur yu góor yi kon ñooy bëgg a des waajur yu góor yi dafa mel ne ñooy bëgg a des kon waajur yu góor yi jot na sëkk ñoom tamit ñu jéem a xool nu ñu organiser jéem di jaayante ci liggéey bi te bés bii waxoon nañ leen ne képp kuy ñëw na nga jéem a am loo ñëw pour jaayante ko te yegg si si nañ ci bis bi kon ñi ngi ñaan képp koo xam si teew nga fi nekk waajur wala nekk wala nga nekk koo xam ne si liggéey alxuraan dong moo la ñor taabal jaa ngi nii am na ñu fi toog ñoo xam ne si loo leen jox dinañ ko dugalaat ci liggéey bi li ci desaat mooy dañuy jàllale loo xam si dañ ko bëgg ku ne bàyyi xel am na ku may diglu fi ne nii am na yéene euh, taabal euh, xaalisam ci liggéey bi waaye yàlla def na ne yoru ko waaye am na connaissance boo xam ne sii mën na faa jaare koo xam ne si su ko waxee mën na ñëw bokk ci ñi xam si ñooy taxaw liggéey bi xeebuñu ko ñu ngi koy bàyyiloo xel bu baax baax liggéey bi lu mu ci mën a jàppee moo xam jaaru ci jaar na ci daara ji moo xam jaaru ci daara ji koo xam ne si daal alxuraan ñor ñor na ko liggéeyal borom ñor ñor ko ñu ngi koy soññ bu baax a baax ci liggéey bi lépp loo xam ne si mën na ko cee jàppee moo xam ci euh, connaissance bu mu mën a doon ñu ngi ko ciy xaar di ko ñaan lu mu ci man mu jàppee ko ndax ne liggéey bi dafa nekk loo xam si yombul parce que bañ ci ba léegi ñun liñ ci financé goon rek xayma man na 4 millions 4 millions et quelques te 4 millions et quelques yoo tax mu mat ko mooy liñ fayul maçon bi moo tax waaye su fekkoon dañuy fay maçon bi fi ne ay 7 millions ay 8 millions la ñuy wax waaye ci baax ci kàttanu yàlla ak baaxam moo tax fi ne ñi fayuñu daray maçon bi ñun li ñuy def mooy jënd matériel bi kese te yàlla dimbali ñu ci benn côté tamit matériel yi ñuy jënd parfois yi ci bëree bëri am na ci koo xam ne sii dañuy lebal maam matériel yi ñu soxla dañuy lebal bañ am ñu fay ko kon liggéey bi yàlla dañ cee defal tawféex ju rëy rëy ndax li tax mu defal ñu tawféex mooy ñi koy taxaw dañoo néew te nee naa la daara ji ñi fi jaaroon mën nañ cent personnes wala ëpp nañ ko te ñi koy taxaw ci quinze personnes lañ toll fukki nit juróom passé wuñ ko te ku nekk ci ñun fexe na ba ba ba message bi nga jot yi ñu ci jaaroon ñëpp fexe nañ ba ba message bi ku nekk jot yi waaye koo ci wax mu wax la loo xam si doo doo ko mën a dégg kon nag ñi ngi leen soññuwaat yéen ñëpp te xam ne li ñuy def defoo luñ ko kenn man fa saalihan fali nafsi nañu bàyyiwaat xel bu baax a baax na jëf ji ñi ngi def alquran taxaw te suñ bopp lañ koy defal kon ñoo ngi jégalu bu baax a baax a baax di la joxaat kàddu gi bisimilah. jërëjëf Serigne Gueye kon foofu la ñuy tàggatoo ak yow kon mu mel ne mbokk yi dégg nañ ne xam ne noonu la ko Serigne leer leen ci seen liggéey mu mel ne ñu ñu war a jàppale lañ ñu war a ñaan lañ ndax ñu ngi liggéey liggéey ba am solo ci daara kon soxna Ndeye Beye foofu la ñuy tàggatoo ak mbokk yi di leen jox di daje ci beneen jotaay waaye tamit ci beneen daara Serigne Mbacke Dieng Touba Darou Khoudoss rajo Télévision Jamaatul Xidma TV لربهم وما يتضرعون حتى السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون بسم الله الرحمن moom nekkul ci at mi goog suñ bàkk amuñu ko loolu nag day wane ne mbir mi moom nekkul ci at mi goog suñ bàkk moom la moo tàggat xale yi ci daara jii nga xam ne loolu ci moom suñu xel a formé kaan yu góor ak yu fóore loolu laa formé itam soxna yi kaan ak Moustapha faal moom maam Cheikh Ibrahima Fall li nga wax kon am na solo lool kon yàlla ko fi yàlla yàggal mu ànd ak wér ak tawféex te lépp nag xam ngeen ne mooy tawféex maam Cheikh Ibrahima Fall te mooy tawféex Serigne Touba kon ñu jox ko kàddu gi rek moom sëñ Amdi Fall moom mi nga xam moom lañu tuddee bis bi wala ku mu wax loo rek ah, bu fekkee micro bi kon day dem foofu bisimilah. toogee toogaayu kenn bi yëpp. ñoo ngi leen di nuyu ci turu sunu waajur di baatu ndigal bu bàyyi ko ci moom tàbbi si ci ñoo koy jàllale ab siyaar moom sëriñ bi. nga xam ne mu mel ne bis bi sëñ Mbàkke loo dara jàll ko sëñ Amdi Moustapha Fall mu sëñ Abdourahmane Fall mu mu Cheikh Ibrahima Fall muy lu kawe jot ko jot nga xam ne sëñ bi teew la fi. ànd ak délégation boo xam ne ànd na ak ay doomam ndax ki toog fii fekkam noonu suñu Cheikh Gaynde doom la ci moom si di doomi suñu daam mu suñu mu mu suñu Modou Mbenda Cheikh Ibrahima ànd ak ay jëwrinam yi nga xam ne ñoo féete fii ci Touba ak ay jëwrinam yi nekk boori Ndakaaru sëriñ bi nag bëggoon naa ànd ak njabootu sëñ Abdourahmane Fall gépp góor ak jigéen mag ak ndaw waaye ku ne xam na ne jamono ji fi mu toll bi ak yitte yeeg yëngu yu bari ak tëb ci ndigal ba ci ku nekk njabootu sëñ Abdourahmane Fall bi daa am bu mu ay yitte yu mu xatagoon mu sàkku nga demal ko fa moo waral mu ñëw teewaale ñoom ñëpp waaye bu ñu ñëwee boo leen jeexoo góor ak jigéen mag ak ndaw ak taal bi yëpp. sëñ Mbacke nag nii nga def sëñ bi nuyoo bi ci kër gii di kër Baye Serigne mi ngi koy tàmbalee ci sëñ Damloo jaar ci sëñ Cheikh Maguette Lo ba ci caani sëñ Limam ak ñu jigéen ñi ñëpp ñu leen di siyaare di nuyu soxna yi yi fi fekk yëpp yi nga xam ne ñoo àndal ak Baye liggéey bi ba tey lii lépp am nga xam ne muy loo xam ne lu ko ñor la tey bi ko sëñ Mbacke yëgloo ca weeru koor ba léegi si fu mu toog da koy ndamoo di ko sagoo di ko tiitaroo nga xam ne muy lu ndax ñin koo dara jaala woon jamono yi yëpp ku ci ne rek daanaka moom doyoon na sëkk waaye sëñ Mbàkke ci mbaaxam ak waa kër Baay Tëri ñi nga ñoo seq ak sëñ bi wala ne ba yàlla dogal ñu defaa tey mel na ne dinañ sëñ bi teraanga joo xam ne sëñ bi moom li mu wax nee na daara ji moom sëñ Mbàkke da ngay féetewoo da ngay féetewoo doxal ak sa diggante Cheikh rek moo tax xel dal bu baax lépp lu fi naan la ak incha allah rabbi léegi ginnaaw loolu nga xam ne bisu alquran la nga xam ne képp ku ne alquran ab cër ci lislaam tuddee Cheikh la war ngaa tey bu ne jàmbaari Cheikh la lañ tuddee bisu alquran war ngaa xam ne delloo nañ buñ ci boy bay bi dafay wax jaay di waxee kon tey daa mel ne bis dara jaay suñu Cheikh la. da ngeen lëg sànni ko ci waaw kon lu kon kon mbir la moo xam ne ci boromam ngeen ko delloo muy Cheikh Ibra eh, di ku xiroon ci alquran ndax Sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu bi muy joxe taawu Cheikh Ibrahima Fall mu koy joxe daf ne ci njaareem wóor leen ma sëñ Mor Ndiaye jullit moom ñu di wër fekk dana woon Mor Ndiaye rek ñuy wër fii nii Mor Ndiaye sëñ bi ne leen Mor Ndiaye laa wax bi ñu nee sëñ Mor Ndiaye julli sëñ Tuubaa mi yàlla moo ne ma julli la mu ne ko dama laa ko Mbàkke de loolu dana tiis si man de sëñ bi ne ko loo fi yor Mor Ndiaye sëñ Mor Ndiaye ne ko man de Mbàkke denc ma dara waaye kaamil alxuraan bi may jàng nag yor naa ko sëñ bi ne ko indi ko kaamil boobu moom la sëñ Tuubaa cere daawu Cheikh Ibrahima Fall bu jigéen kaamil alxuraan boobu muy soxna Fall Fall bi mu Euh, suñu Mor Ndiaye joxe joxe suñu Tuubaa suñu Tuubaa may ko taawu Cheikh Ibra bu jigéen suñu Tuubaa jël kaamil bi yónnee ko ca Cheikh Ibra bi ñu ko yónnee ca Cheikh Ibra Cheikh Ibra laaj lu waral ñu yónnee ko kaamil bi ñu wax ne ko suñu Tuubaa dafa joxe sa taawu jigéen suñu Mor Ndiaye junni la ko jox te suñu Mor Ndiaye dénk dara ab kaamil rek la yor sëñ bi nag kaamil boobu la jël téye ko muy alal ji mu may ko ko Cheikh Ibra téye kaamil bi daal ne ah doom moom ne sëñ Bamba daa bëgg a dellusiwaat alxuraan ci sama kër gi rek waaye lii dinaa ko téye waaye alxuraan moom cër bi ci sëñ ñi laa koy bàyyi lool nag xam naa leer na ñëpp ci jamono ji ndax li alxuraan moom kër Cheikh Ibra rek lañ koy bàkkoo kon nag ginnaaw loolu sëñ baa ngi jaajëfal waa daara ji di leen delloo di ñaanal mbégte fa mu tàmbalee fa la sëñ bi waaye amul ab doyoo ndax boobu ba léegi ci fu mu toog damay waxtaane tey jii bi ñuy toog ak si ñu toog ci baas bari jàpp ne toogaay bi dafa yàgg ci moom moom méttiwul ci moom de ndax li xale def jaral na ko moo tax mu jaayante ko toog fi ba tari bi mat ci ba tëgg ngir xol bu sedd ndax it alxuraan moom day doon loo xam ne képp koo xam ne sonne ko ci yaw def ko ci yow amatoo geneen fayam rawatina nag ay tuutànk yoo xam ne li ko dalee ci fukki at ak ñett jëm suuf lan am ndax bi yàlla dogaloon na jaanal fi saakoo xam-xam ba wootoo fi alxuraan ci bërëb bii nga xam ne euh, muy lu kawe njort loo xamante nii sëriñ bi moom tout le temps loolu fu mu toll rek da koy fàttali ne kon moom daal jaaraama rek lan mën a wax da sëñ bi mën a wax sant na ñëpp sant na kilifa Mbacke Mbacke yi teew sant na wóolare yi mboolem xam ne teew nañ ci bis bii ñëpp sëñ Mbacke naa di nuyu di leen jaajëfal di ñaan yàlla daara ji yàlla ko saabaroon jëmale kanam bu baax a baax lépp loolu fi suñu kii naan rek saabaroon àggale ko ànd ko ak taw ndax li mu fi yéene bi de xam naa tàmbaleegu ci dara day naa di teg rek waaye lépp incha rabbi saa borom dana ko ñoo ngi eh, rafet njort ne suñu borom danañu ko defal incha allahu rabbi kon nag kàddu yéen simbi la woon ñu ko mbooloo mi kon moo ngi sant bu baax di leen jaajëfal di ñaan bis bi gën a jëm kanam rek barke suñu tubaab Cheikh Ibrahima kon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. ndax wane mbégte xol ñu mu ngeen. mbégte bu ñu am mu rëy te mbégte bi daal sababu ko lu may wóllare wu yàgg soo borom def ci diggante seen waajur Baye Serigne Lo ak sëñ am di Moussa Fall mi doonoon wóllare woo xam ne Bachir kese moo ko laaj taay ak Serigne bi rek sunu borom dogal mu rafetoon lool loolu mooy dëkkal ko ci jigéen. muy bàyyi seen yoon fanaane alquran wala nag te seen am bi loola nag noonu wala lu waxat ñoom ñu doon ko seere ginnaaw mooy sëriñ bi tam seen am bi ñu jàpp wala rëgg di ko doxal doxal yi boo xam ne rafetaay ba foo ko takk rek moo mën a bokk loola nag moo seet seen xol lool am fu mu yegg ci ñoom bañ xam ne kon lépp bàyyi sëriñ dañ am bi daa tudd te biir ndax la leen boole woon muy jaaxaan te boobaa léegi ñu ngi koy jàpp kon yeewu na lool lépp ñu ko bàyyi sëriñ te dem di yëg boppam ci yëg-yëg naka jekk itam ñu ngi yëg boppam ci diggante ba bàyyi sëriñ ndax ñoom ñëpp ñu ngi koy jokk te ñun ñi mën nañ ci seere am ñeneen ak ñeneen ci janaay bi ñoo xam ne mën nañ ci seere ci diggante sañu am gi ak sañu bàtte ci loo xam ne ñu ngi koy seq ñoom ñaar muy lu rafet ndax suñu am gi ñii ak ci bi taxawoon léegi wax suñu am ci daara ji dañ ko xamee woon ci la jàngee alxuraan ci la jàngee xam-xam ci lañ ko yaree loolu ñun ñëpp suñu teewaay la ay rakkat itam jaar nañ ci daara ji kon loolu ak jàpp la wala lële la te itamit loolu mu ngi leen di jabootam moom la leen bàyyee xel xew am na fi ba tay yi ñu fekk ko ànd nañu si mbàkke ba tay yi itam dem këram ànd nañu si mbàkke ba tay yi itam dem ca gàmmu bi muy def kooku ñu jigi kon loolu wala lële la woo xam ne. wu sax wu yàgg la wu rafet lool te wóllare yi tamit nag jàpp ko ak matal ko warteef la ci diggante ñaari jaami yàlla yoo xam ne yàlla da leen koo boole. ndax ñun ñëpp jàng nañ xam ne Ibrahima salaam li mu digle bokk na ci sa soppee baay ginnaaw bu sa baay wanee gannaaw nga jigéen jàpp loolu ñoom suñu bàyyi dañ jàpp waaye si ñëpp itam mooy jàpp na leen ñoom tamit ngir bàyyi seen i waaye jàpp na leen ñooy tamit ngir seen jikko ak seenu yàlla. looloo waral mu doyloo suñu Mbàkke di doyloo waa kër gi di dénkaane njabootam ngir mu waroon leen di ñëw ñëw ak yàlla kon diggante bu yàgg la boo xam ne ku ko dégg ku ne da ngay xam ne lu rafet la lu war a am la def loo xam ne nag lu war a am la def loo xam ne itam dundal wala rëy la ku ne xam ne ne suñu borom digg nañ ay tuyaaba yu du jeex kon si jot bi yaa ngi nga bokkal suñu am ak ñi féete ci ñëpp na ngeen maase seere ne sëñ daam nii ak sëñ Cheikh mais ak sëñ Bassa sëñ Mbacke ñi bokkal Baye Serigne ñëpp ak mboolem askanu Looyeen ak dongo yi nga jàpp ci liggéey ñoom ñëpp bu ñu amoon lu ëpp lii ñoo defal tey dañu daan ñu ko defal ndax sa jàpp matale na ko sa jiir matale na ko sa yéene matale na ko yooyu tamit nee na ñu ngi lay delloo cant boo xam ne am na tàmbali waaye amul ak yow waaye. ñaan gi nga xam ne ñaanal nga leen ko ginnaaw boo yëgee tur woowu mu rëy ci yow lool ak teraay yi teraanga yi nga xam ne itam seq nga koog ñoom ci bis bi te dégguñu la ko ndax yàlla kese tax mu tudde la teraanga yooyu nee na kawe na seen jot te fooguñu ko woon waaye ñu ngi ñaan nga xam ne am yi yoon Cheikh Ibra Fall mu boole ngir yi nga xam ne Cheikh Ibra am na ko ki ëpp Sëñ Tuubaa xamaam yu baax yi am ko jot Cheikh Ibra suñu borom defal la ne ko kaw jot ñoom itam loxo di la yalwaan nga ñaanal leen ci barke Cheikh Ibra li nga xam ne mooy bëggu Sëñ nga dimbali leen ba liggéey bii nga xam ne moom la seen waajur nekkoon mu doon seen joxaan ay maam ba nëgë ni ñu nekk ci kusa boobu ñu doon awante ba àgg ci ñoom te bu nga xam ne réeru ci ñoom kusa boobu nga dimbali leen bañ continuer di ci ñaw di taxaw li ñu dul day mën alquran day te taalibe day mel ni nga xam ne noonu lañ war a mel ndax ñu ngi génn bu ñëpp noonu lañ mel waaye da nga leen ñaanal yàlla nga xam ne daal moom mooy teg aw ay day teg lor day teg cat ak lépp te loolu sikk sàkk wuñ ne soo ko doogee ci barke Cheikh Ibra Fall suñu borom defal la ko ndax Cheikh Ibra Fall day mooy buntu Sëñ Tuubaa te kenn wérantuwul loolu baabu murid dina loolu kenn kenn ngir doon caaxaan da koy jëfal yàlla ba yàlla nangul ko ko def ko ci xoli jaam ñëpp ci amoon ko faanal tudde ko ko mu doon loo xam ne lu siiw la lu ñëpp nangu loolu nag kon boo toogee fii ñu defal la teraanga ci tool nii muy li ngeen di leen def naka jekk soo leen ñaanalee yàlla ci rakk Cheikh Rahane mboolem loo leen ci fàttali nga def ko amee lu koy seen jot loolu moom ñi nga defal leen te ñaan googu itam ndaw ba mboolem ku fi teew. wala mu amul yéenee teew wala mu am mbégte ci tudde gi ñu ko tudde wala mu am mbégte ci liggéey gi ci nàkk ci liggéeyal yàlla yàlla defal ko ñu dawi ñoom ñoom salaamaaleykum wa rahmatulah. maam Diarra bi duma leen di jàng waaye balaa ngeen di jënd dana liggéey li mu liggéey ba pare sa gërëm mi tamit jàng jàng na ba mokkal daa war a dem liggéey jàppale ñu ci kër ah li nga wax tamit dégg nañu ko bu baax waaye su ma seen nga jàppale ba si xam li bëgg si bëri mën naa su ma seen nga jàppale su baax la man daal li ma lay wax wax naa la ba pare te li ma lay wax sax nag mooy am jege téere xam-xam yi ñu fi jàng amal malaayika yi mel malaayika yi wala imaan gëm génn ci ñoom boo moom ak tafriq mooy dëggal wala dexaan ak wóolu benn noonu ci naka ñoom la chaque amul benn si sàkk na moo jurul naa ñu amal nañ su ma maa naa topp ñu ñu ko dina ci ay bàkkaar ñu ne yi li ngeen gëm yi dañuy dëggal wala suñu borom subhanahu wa taala moo leen amal te suñu borom subhanahu wa taala ay bàkkaar moom lay wax ci alquran naan laa yansuuna allaha ma amaru ah yéen bi yéen bi ba ngeen dem denc ba ngoon ngoone nag seen jëru bi ngeen ko tànn xale yi na ngeen def yéen fi yéen jàng seen leçon waa si naat boo toll si sa beeq bi xaajal naa dem ah xaajal nga dem daan na yow foo toll bu xiisin moo ma dese léegi mu wàccee Ah, ah man de man ma bëgg mooy ngeen góorgóorlu baax si seen jàng bi ndax seen bàyyi kat yi ngeen jàng rek moom la bëgg te man kat lu mu bëgg rek moom laa bëgg te yéen kat yéen a suñu yaakaar da ngeen góorgóorlu bu baax te buñ noodee ngeen dem julli te ngeen ñëw ngeen reer waaw. ginnaaw bi nga. léegi dama leen doon defoo da ngeen koo def déedéet lan moo tax defoo leen ko dañoo mokkal li ñuy jàng lu sama yoon ci seenum jàng damaa bëgg ngeen jug def la ma leen doon def loo waaye damaa waxut ak maa ngi ni damaa war a mokkal day def ci an mi bëriwul bu sama ci sama mokkal man sama réer laa di jënd dugal nga sóore réer eh, nga def ma doon la def lool. ginnaaw li nga xam ne de. okkul ba de. maa doon liggéey. liggéey dong maa ngi liggéey ba noppi leen doon seetaan télé. seetaan nañu kare ka ka bi ñu eggee kër ga suñu dañu may suñu jàngee bu fekkee ñu jàng ñu nangu suñu téere fay làmp dañu liggéey loolu ba waxtu bi jot. Ah. waaw. ano si ba yóbbu ko. yëg na ko kay. ah kon baax na alhamdulilah baax na ngeen demee. yéen ñaa ngi seen juróomi bi mokk na. waaw. baax na ma ngeen dem denc ba ngoon. maam Diarra kaay. ana garas. garas maa kër ga. moom fan yii lan moo koy teree man kat xaw ma lu ko tey jàng su ma xëyee daal naa gis ma ànd ak sama baay bu ma nekk wàccaat. ah ah waaw ah, kon baax suñu jàkk ji day wax dëgg yàlla war nga santal yàlla baax a baax ndax wax dëgg yàlla kat imaam ñoom ñu ngi def ci imaam yi imaam boo xam ne moom loo teel teel boo dëkkee fekk si jàkk ji wax dëgg yàlla war nañoo gën a sant yàlla baax a baax waaw loolu moom fu mu war a def suñu jàkk ji war nañ cee dugaat bu baax ndax boo xoolee weer koor jàkk ji day fees dell ba bu ñu génnee weer koor bi daanaka sax du dëkk daal kenn. ah si daan loolu nga wax dëgg wér dëgg la nit ñi moom dañuy jàpp ne jàmm yàlla moom si koor gën la yem waaw loolu moom war nañu si jëlaat ay matuwaay yu mag sëkk. waaw yéen ñaa ngi ji sax dama leen soxla woon yow sëñ Mouhamed nag yow nag maa ngi lay sant bu baax di la jaajëfal waaye lii nag benn moo ndax keroog ba ma leen dajalee sa daara ba wax lii la may wax tontu kii la sama tomb waaye sëñ Mouhamed Diop yow it lii benn moo ndax bu ne kenn xamante ne bii lay jàng tey bu ñu jàng see tey bu ñu jàng seen waaye lii nag bépp moo woon ndax keroog ba ma leen dajalee sa daara ja ba wax leen am leen wax tontu ko benn tontu plus ba ndax da nga wax boo àggee dañuy laaj soxla ci xalaatam ndax xanaa xamoo ni tey yow la ci yàlla jiite ndax arrêté yàlla xaw maa mun a xam dañuy saa yi na nga bàyyi xel ne jabar gi su doon dégg la kat ëllëg yow ma xam ne yàlla laaj lépp ndax kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi ah suñu taal ñu ngi déglu bu baax xëy na rek loolu ñàkk xam nga waaye ñu ngi déglu bu baax xaalis yaa ngi waaw ah, day day day si jëlaat marka lu muy sëkk ñu ngi déglu bu baax a baax waaw mun naa ñuy daal ak kenn waaw baax na. ginnaaw bi nga xamee ne wax. déjà loo may doyee. ah man de maa ngi jóge sa jafe suñu xayma daa am kàddu yoo xam ne daanu ko demati ba nii muy ki nga gën a gën mën a jàng si loolu si jàng si tubaab di njàng si dafa lay si gaaw loolu. fan yii jëkk naa ba ma waxee la ma ma ne wax naa la ma daw maam jaara mi du génn kër gi te jàngul li mu jàng ko maam jaara mi du génn kër gi te deful li mu def ba pare tagala bi tamit njàng mi damay bëgg a soof damaa bëgg mu bokk te dem liggéey seetal nag li ma la wax a la seen xaari wax ban la ci gën a ñor ah, mu waree bàyyi jàppoon si liggéey dafa yàgg trop hmm, temps yi moom dama jëm mag gis nga liggéey trop moom jaar moom ah daa yi may dig ñaa di nga am solo moom jaar moom mën naa si dem marché bi ko amee yooyu waaw kon moom naa si doxi jiw waaw loolu de moo a alhamdulilah barakallah naka daal yi daal a si kawam waaw ñu ngi ci jàmm wàcc nañ rek gone wàcc nañ baax rek waaw ñu ngi baax a baax ñu ngi waaw alhamdulilah yow fan yi yëpp sax maa bëggoon a wax hmm. ngaan fan laa doon wax moom wàcc na suñ bàkke yi kaay nga doon àgg na damaa bëggoon nga jàpp bis bu rafet rek nga ñëw ma yeewu ko mu jàppale ci kër gi ak yooyu waaw jërëjëf li nga wax wax dëgg yàlla naa ko loolu kii sant naa ko si gërëm naa ko si waaye kat monsieur Sine Mbacke dañ koy bàyyi foofu ba toog sa wet day jàppale ndax wax dëgg yàlla moom liggéeyu daara daa xaw a day waar lool monsieur daal day toog foofu day jàppale waaw loolu moom dañ koy rafetlu bu baax a baax ndax boo xool daara ji jamono ji soxla nañ loolu ki nga xam ne may toog di jàpp ci liggéey loolu daal nañ koy rafetlu donc waaw jërëjëf kon baax yàlla yàlla defal tawfiq amiin dañu bokk yàlla yàlla defal gudd fan ak wér gu yaram amiin dañu bokk yàlla yàlla defal amiin kon baax amiin daw waɗi sownami sano ɗon na jogo kadi heɗo waɗi yala wono kadi yo kam ne kadi tan la waɗi yalde sannago lol fernago tawi kama kamal ne ganmi wacina wimbakmi kam ɗon mbiɗi yagane heɗo waɗi yala yori maliji sante dila gërëm ten moom daa bëggoon ñu jàpp si rek si mbàkk mi ñëwee ko ma ne ma ma ne ma sàkkoon ci moom si mbàkk mi daal si daal di koy jàpp ne ndax wax dëgg yàlla liggéeyu daara moom daa xaw a doy waar loolu sant naa la gërëm naa la wax dëgg yàlla dafay sa tawaay. ah jaaga loolu moo ma war ndax xale yi kat su ma yàqee seen jaamu yàqu ëllëg lu leen mën dal man lay doon dañu ma say waajur jàppale ba ma bokk alxuraan noonu laa leen fas yéene taxaw ba ñu bokk alxuraan bu dee li nga wax sëñ Ba tey maa ko defal lool xanaa kay di ko wax mu gën a góorgóorlu bu baax te bu yeggee mu topp suñu xaalis li nga xam ne def na ko si moom fas yéene ko def ci li ci des. kon daal xam naa boo jógee naa am loolu def su ma jàmm nga toogal leen ci ay laaj yu daal di incha allah. jënd. waaleykum salaam. suñu bàq kala maa su xaaj ñu ci. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. si xaaj. dara dara. maa ngi lay. maa ngi. maa ngi si jàmm baax. maa ngi si jàmm baax. maa ngi ko bàyyi ñoom. ñaar. maa ngi si jàmm baax. maa ngi si jàmm baax. yow moom fan yii dinaa la gis si daara ji rek. waaw naa bàyyi. bàyyi. waaw. ana sa bàyyi ko. Saba moom bàyyi woon. ah. mu ne waajur léegi jaaxal nañu. bu ñu andi seen doom si daara ji daal wax dëgg yàlla dinañu wax quoi. waaye bu ñu bàyyi doon am anam ñu ne bàyyi looy def léegi. léegi maa ah. oh. si mille ans ah. oh. waa ji ngeen waa ji daal ko yàlla dégg rek teg na la maam jaar bu toogoon àggale am njàngam ba léegi moo ko ndax moom ngaa nu intercadé tey ñoo tolloo woon waaye baax na yéen moom defu leen lépp seen waa ji góorgóorlu leen bu baax rek. waaw xanaa nga demee ñoom si mbàkk. xam-xam nga xanaa nga gisee sori. waaw daanaka ñu bari yëpp jeex na rek damaa toog ci daara ji jàpp ci liggéey bi. ah waaw man laa ko seet ndax liggéey bi liggéey bu mosoon liggéey xam léeg-léeg ngeen sere léeg-léeg apprenti. tey jii seet na loolu rek waaye góorgóorlu rek yàlla baax na. xam nga nga fa sàlle rek yéeg kër. waaw. kii moom kenn nekk fi asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waa kii soxna Ade. maa ngi ci maa ngi ci jàmm bu baax. maa ngi fi Diop. maa ngi fi yaa ngi jàmm. maa ngi jàmm maa ngi si jàmm baax. soxna Diop gëj naa laa. maa ngi nii. kala xëy ñu ngi fi. maa ngi fi jàmm ñu ngi ci jàmm bu baax. ana nga. nga ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci jàmm bu baax. mbirum gaan sax moom fi indi woon ndax yàlla dafa dogal mu yokk alxuraan ci ren bu war koo sàgg alxuraan biir ñu ma bëggoon a nga ñëw jàpp si ba ndax gaan kat ñu ñaan ñoo ko bu kooku bi bëggoon a nga ñëw teew nga jàpp si doom sax ah loolu danañ doon ñaan yàlla ngaan faa dund ba mokkal alxuraan salaamaaleykum ensemble maaleykum salaam ensemble waaye yow gars fan nga ni kon bi ah si ah. taxawal ku métti nga ni kay fan nag amoon na bay ah, ah tey jàpp naa place bi yëpp waaye baax incha allah daal daal Baye daal di si xam laa di man waaye jël naa lu fi mel trop li a mel mooy ñaar benn mooy dina bàyyi ngi bees daal si xar ñu te Baye xaalu métti métti si xaar war kay na des man alxuraan des man xam-xam bii des mooy li mu gënoon a mooy toog si alxuraan ci si xam des man may defaa su ko nii li nga def wax yëpp dégg naa ko waaye dëgg bu wér kéng la wax nga ba ñuy jàng soo la ñu bàyyi ñu jàng kon tey suñ morom mi am danañ ko am waa ngi yàqal ñu suñu jàngeen alalu àdduna waaye na ngeen xam lu waaye leen ci loxo lay naaj. waa kii maam Jaar. man la kay. da nga xam maam Jaar. maam Jaar de xam naa ko bu moom sama doom ñu daan chaque jour ñoo daan am ñoom ñaar fa ñu waajaloon ñu war a mokkal ren maam jaar de maa yaay ah kon yow yaay yaay ñoo suñu ñaari doom yi ñoo sama gàcceeg tey jii xaw fu ma koy waxi ji waaw soxna Jobe nii non si kii bi sëñ bi xam doom boo ko rek parce que moom ñaar ñu waroon bokkal nii nii dagaloon ko jàng bi di ko mbindaan lool dara suñu tamit gisoo bu doon àggalan jàng dagaloon ko jàng bi di ay seet waaw man lu may dégg nii kon ngeen bëgg a wax ne maam Diarra mokkul alxuraan waaye yàgg na Serigne Mouhamed Diop xanaa loolu ba mu am fekku la fi. ah ah si loolu ba am si dëgg la ma fekk waaw waaye li ma wax li bëgg a dégg lépp ak seen yaay su ma soññee lépp loo xam ne seen moroom am nañ si daara jee dañ ko am waaye lépp ak seen yaay wax naa li bëgg a dégg mu ne alimik lim naan daan la ah sëñ Mouhamed Diop sëñ Mouhamed Diop saa gan nga de te baal ma nag ndax borom kër gu mat kilifa yaakaar naa wóor na jëlaat ci këram ku jaar du koy am te yaa ngi si daan loo xam ne ëllëg mën na laa sa borom kër sa kilifa la da ngay kilifa ne maxana nangu ko lool ne aw daal ndax bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jigéen su defee ay fantaan kooku borom kër faagu rek moo ko dee dugg àddina kon nag seetaan leen seen boobu yéen ñaar taxawu njaboot gi taxawaayu kilifa ndax njaboot gi njaboot dina la yóbbu ay waajur ëllëg ci tur bu baax mën na ko def rawatina di ko jum seeraat def ko ci naa maa ngi àgg kër. ah soo si mënoo topp. baax na xale yi doo ko fa. noonu laa doog a taam si kanam. ci ci seen gàncax gi comme fa la ko waxee waaye lépp yow gàncax gu maam rek day yàmb de soo bàyyi ko ni jàng sa leer ami gi di topp di moo dem gàncax gu maam rek nga ne su ma ko xamee woon nii du ma ko def waaye damaa bëgg rek nga ah, naa sama waaye li nga war a def ci góorgóorlu yi man góor yi ñoo jaar. ay xale yi baal leen ma àq yéen kat leen ñoo baal a àq ndax yéenay suñu waay ay doñ ngeen ñu ay nen leen boo leen dalee seen kaw toj biñ dalee seen kaw toj. dégg tey jii di moom yéen ngi ñu. dégg nga ne xanaa nga xel bés bu réer la xaalis naa for mag waaye suba incha allah bi su ma jógee ah lépp loo xam ne bëgg nga seen jàng wi dana dana ko suba incha allah bi dana lay si daara ja nga àggal seen jàng dinaa la jàppale ci xale ba foo bëgg seenu njàng yegg fa mu daal di fay yéen ma si dé ñu doon noonu kon suñu xel a a baax te xam ne ñi jokkoo mu amoon yéene yi nan ko doon ànd ak ñun ñëw jot li kat yoo xam ne day ko wóote sëriñ bi noonee la ko fas yéene ànd ak ñun xëy na tënk-tënk jamono loolu rek mooy li nga xam ne moo tax ba léegi ak séegu waaye ba tey te yaakaar naa ne incha allah danañu jot li kàddu yi nga mooy ko wóote sëriñ bi waaye nañ bàyyi xel ci ne mboolem li ñuy wax ñu ngi wax ci turu suñuy kilifa yi nga xam ne suñu leen tudd ginnaaw yàlla ñoo tax. mooy Baye Serigne Lo waaye njabootam gi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk mooy Serigne Dame ak Serigne Cheikh ak Serigne Bassirou ak jigéen ñi ñëpp nekk bàyyiwul kenn ñoom ñëpp wax dëgg yàlla bii koy wax kon euh, ñoom sant turu Serigne Dame Lo xam ne moo nekk bopp bi cant yi moom ci loolu rek moo ay cantam rek la ñuy jottali kon daal euh, lii bu ñu ko dee am ci wax dëgg yàlla ndigal lu loolu dana dal xel bu baax euh, ndax Serigne Mountakha bi nga xam ne moo fi nekkal xalifa moo fi nekkal Serigne Touba di Serigne Touba ci kaw suuf yàlla dogal na tey jii rek ci ginnaaw lañ jullee tisbaar waaye la waxal ñu rek mooy jotaay bi maa ngi koy ànd ak yéen da te rek jot bu baax kon loolu moom ñi koy seeral mbooloo mépp waaye mbokk yi ñu ngi sant jàngalekat alquran yi nga xam ne. ñoom ñëpp kenn desul wax dëgg yàlla ñoom ñëpp a ñëw euh, ci bopp bi euh, sëriñ Baye Khady Diakhaté nga ne moo jiite moo jiite wala sëriñ Bassir moom sëriñ Abibu ak sëriñ Bassir moom sëriñ Fallou waaye euh, bu dee fii nag sëriñ Cheikhouna Ndiaye bi nga xam ne moo doon wax léegi kon cant googu ci ñi sant mboolem sëriñ daara yi ñu koy sant ci aw ci turam mu jot ñu ci mboolem sëriñ daara yëpp. nga xam ne ñoom day wax dëgg yàlla wàcc woon ak des am ne ñun ñoo des waaye ñoom wàcc woon ak ñun ndax koo xam ne moo ànd ak yow ànd ak ci liggéey bi féete la fépp ànd ak yow ci ak bëccëg saa yoo ko wooy boo gëstoo gis ko mu na loola lool kooku wax dëgg yàlla wàccee waaye biñ demee ba xale yi nga xam ne ñoom ñu doon taxaw léegi di doole ci mokkalit am na ci sëriñ yoo sëriñ daara yoo xam ne bi ma leen woo bis bi daal leen woo teewul ne mën a xale ñëw kon ku ne xam na ne ñooñu moom jàpp nañu ci jàppanti wundu taxaw nañu bu baax a baax a baax def ak li ñu seet mooy alxuraan suñu borom moom yàlla nañu leen fayal waaye mbokk yi ngi sant magu koñ bi nga xam ñoo fi waaye cant googu dañ ci jiital Baye Talla Lo ak itam ku mel ne maanaam bu ñu ñëwee sax dañuy tuub ak bu fekkee ne tudd nañ ko rek moom mën nañu ko lépp teg ko ci loxoom mu jot dañu ko ci mboolem ñëpp rek te xam ne ñëpp a yem maanaam mboolem ñëpp rek ñu ngi leen di sant sant am na fu mu tàmbali waaye am fu mu bii de bu fekkee ne am na am ci koñ bu mel nii kon a xam ne ne dëkkandoo yi rek ñoo baax ñoo baax te ku nekk jàpp sama war a jàppee waaye bu kon di seet buñ seetaanoon day wax dëgg yàlla day xam ne liggéey moom euh, soxna ma na ci am lool kon nag ñu ngi leen di cant cant koo xam ne am na fu mu nga xam ne kat wax dëgg yàlla li ñuy wax euh, ab koñ euh, li mën la ndax li ñu waxee ne al jaaru qabla daar mooy maanaam bala ngaa dëkk yu baax ba noppi kon nag bu nga xam ne ne Baye Serigne bu nga xam ne moo jëndu woon ci ba ci gi ñëw fii andi ay dongaan kon fi ñuy yaatal ki ko yaatal moo waral muy dem dem ba ab dëggee man loolu nii nga xam ne wax dëgg yàlla bu fekkoon ne am na neneen ñu mel kon gis nañ ne liggéey bi daanaka ubbi askan yi kon nag ñu ngi leen di cant koo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye am fi yam te di leen euh, rafetlu bu baax seen jàpp ci daara ji waaye ni ko seeree njabootu Baye Serigne gi nga xam ne ñoo fi nekk ci jàpp gi xam ne ñoom ñu jàpp nañ ko ci daara ji waaye di sant yi mbokk yi nga xam ne am na mënuñoo ñun ñëpp waaye am na ci ku nekk xam ne fan fan la jàppee waaye am na ci euh, yàlla xam ne daaw ba ren dañu nit ñi jàppante ñu ci daara ji. rawatina bi day wax ba suñu si maanaam seen i pexe ak seen i yéene ak seen alal ñëpp def nañ ko ci def nañ ko ci liggéey bii kon moo tax liggéey mel noonu kon nag bu nekk fan la taxawee fa nga jàppee xam nañ ko waaye ñaan suñu borom yi nga xam ne moo tax ngay def suñu borom mu fayal mu fayal la waaye ñi ngi sant it ancien donga yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci daara ji ci euh, keppaaru Baye Serigne Lo am na ci ñoom maa ngi ñoom ñoo fi bokkoon nekk am na ci ñoom it ginnaaw euh, Baye Serigne waa seen dëgg ci biir daara ji waaye ñoom ñëpp day ñu ngi leen di cant cant koo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye waaye amu fu mu yem te xam ne kat li ñu xam daal mooy sàggal nañu sax koo xam ne li wér te wóor mooy suñu borom rek lañ leen bàyyee ndax war waa dama ñu gis di ko naw lool ci sëriñ Mbàkke di ko tudd waaye li wér te wóor mooy euh, ancien dong yooyu day moom dëgg yàlla ñoom day sàcc bépp ci ñoom ak suñu borom kon ñu ngi leen di sant di du dong yi nga ne ñoom ñoo fi ñoo fi joxe seeni xale ndax dama ko daa wax jotaay yu bari ah daara ji day nit ñëw fi nga dégg ñu ne di ma ngeen ñëw di àtt loolu day wax dëgg yàlla euh, loolu moom suñu borom suturaal nañu jox nañu xale yi ba noppi jox ñu cër ba noppi saa yu woo Eh, suñ geesoo gis nañ suñ suñ ginnaaw wëlbati ko defal ay mbootaay yoo xam ne dañoo dugg jàppale daara ji di leen fóoteel lépp ñu leen ko defal lépp ñu def ko ngir alquran kon nag ñoom ñu ngi leen di cant cant boo xam am na fu mu tàmbalee waaye amu fu mu waaye di sant it eh, ki nga xam ne kenn eh, dëgg mu des pour mu dee mooy Ibrahima Lo mi nga xam ne wax dëgg yàlla ba nga xam ne daara ji mu tàmbalee ci loxol Baye Serigne ba tey loxoom mu sëñ ci daara ji antamal daara ji. jamonte ak saa su ne wax dëgg yàlla ñun ñëpp xam na moom itam ñu koy seeral bu baax waaye Baye Ahmad Diagne ñi nga xam ne ñëwoon na ci biir détail bi moom itam gis nañ ne day moom ba daara ji sosoo ba tey am na mag daara ji ku ne seere na ko moom itam ñu koy sant bu baax waaye ci gàttal ñi sant jàngalekat yi nga xam ne ñi ngi ci biir daara ji ndax mboolem ñi taxaw fii ñëpp kuñ ci laaj jàngale bi moo ma jàngal te ñooñu kat ku ne xam ne bëgg bi bëgg jàngale ni am na ci mboolem ci bàyyi kon nag ñoom itam ñu ngi leen sant sant koo xam ne xar la waxtu yee xar waaye amul fi tàmbalee waaye amul fi jàmm waaye di sant yi euh, mbooleem ak jigéen bawuñu kenn ah di sant Maam Mbacké bi nga xam ne euh, wax dëgg yàlla euh, ko ci biir ni comme ni nga xam ne noonu la ñu waxoon ci jaww ji Serigne ak Serigne Murtada Mbacké di nga xam ne. ku nga xam ne moo jiitu ci jotaay bi waaye sëriñ Xaadim Mbacke mi nga xam ne mooy doomi si Amadou Mbacke tuub ji ak sëriñ Abdou mooy loo xam ne si Abdou Waxam Mbacke mi a si naan yi nga waaye di beral cant nag ak ngërëm ñi ne ñoom ñoo seen xale yi xam naa ne nag cant gi moom nañ ko bëggee jaamu dëgg dëgg wax dëgg yàlla nekk suñu xol ci cant mënuñu ko wax fii ci jotaay bi wax dëgg yàlla ñu ngi mbooleem euh, jamaatu jéema amal na cant boo xam ne am na fu mu tàmbali waaye suñu yam ndax gis nañ ne liggéey bi wax dëgg yàlla ni mu la ñoree ak ni ñu ci jàppee wax dëgg yàlla te xam ne yëpp ni sa liggéey la nga taxaw ko sa bopp kon nag yow ñi ngi lay cant cant boo xam ne wax dëgg yàlla am na fu mu tàmbali waaye am fu mu yam ku ne xam na ne gis nga liggéey ba ngoon yaa ngi toog wax dëgg yàlla wóor na ko ak benn yoon tey tey tey jii dugg ci ban ba ban tàmbalee ba tey yaa ngi ko àndal ne weesu woon yaa ngi ko àndal bi nga xamee ne kàddu kàddu la nga boole ñoo ku la bëri mooy sëriñ Amadou Kébé moom itam wax dëgg yàlla xamal moom itam di ko daara di ñor di ko soxla daara ji mu taxawaay mu taxawaay bu taxawaay loolu lépp rek cant gi dañ ko mos delloo la ko comme xamal ne ñu ngi lay cant cant boo xam ne am na fi daal li nga bëgg te yéene ñaan suñu borom lépp ko nga amee ko du ko bëggee waaye ñun moom sant nañ la mais dañ la sant ñett boo xam ne am na fu mu tàmbalee war a guddi yàlla te xam ne moom nga ne liggéey bi sax liggéey la la sa sa sa sa taxawaay kon nag boo dem daara ji ñëpp maa ngi ko sant maanaam dina ko soxla dina koy sant dina ko jàpp ni ñu koy ñu koy sant ñu koy sant bu baax a baax di sant Serigne Mourtada Mbacke mi nga xam di ko ma des ku ne xam ne bu ko soogoon mën naa doxee na neen waaye daara ji da koo gënal lu ne wet bu ne taxawee na ko ci daara ji ba fi mu toll nii nag jàpp na sax moom génn na ci daara ji kon a mooy itam dañ koy sant bu baax di sant ak a ñaanal si am xaaji baara mi nga xam ne moom itam kataaru gi nag moom dañuy sori sori jamono ji saa su ñu bàyyi la daara moom itam xëy na bu ñu jotaay yi yow dañu daa génn waaye moom itam ñu koy sant bu baax waaye ñu ngi sant yi mboolem ñi nekk ci ji yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw bawuñu kenn di sant yi mbokk yi nga xam ne. ñoo ñoo doon ñoo mooy ñi nga xam ne ñoom moo ko waroon jotaay bii kon nag ñu ngi leen sant baax nga xam ne wax dëgg yàlla nañ leen ko waxee woon daal defe nañ ko noona nañ jotaay ak ñoom yeneen jotaay yi wax dëgg yàlla ma ne lañ ko defee kon a sant nañ bu baax seen taxawaay la ñu ñaan suñu borom yàlla na barke seen alquran kon daal xam naa ñu ngi jéem naa wax ñëw na wasalaamaaleykum naka noonu waa Aywaar ak ñi nga xam ne ñoom ñoo doon jàpp ci liggéey bi moom rek yàlla moo leen luñ jot toog yeeg ñëpp ak ñëpp taxaw na ci weer bu ne man ñu ngi leen di sant bu baax di sant yi mboolem doyen yi nga xam ne ñoo leen ci biir ànd ànd koog ñun ba tey kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen bu baax asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñaari junni ak fukk ak juróom-ñett ñu taxaw ci bis bu tedd bi di nangu ñaan amiin yàlla yàlla nangu ñaan wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. ما قلنا قرآن Abdul Aziz Dieng